di jël suñu néew suñu siyaar rek di ko teg ci loxo suñu kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaan mu tegal na ko ci mbooleem ñi bokk ci liggéey bu sell bi di leen ndokkeelati di leen siyaarati dellu rek xam naa ci liggéey bi ci wàllu li nga xam ne lii moo fi jaraloot ci ay laaj xam na dañ ci jéem dugg rek ndax euh, tey ji mel na ni laaj yi dafa xaw a takku lool xam naa bu yàlla dogalee ñu mën a tontu yëpp ñu tontu ko waaye suñ ko mënta tontu euh, rek ñu xam ne bu des bu desee ñu ne des na ba ñu xaar ko ci beneen jotaay xam na waaye incha allah rek danañ fexe luñ ci mën a tontu rek ñu jëm ko tontu bu soobee yàlla incha allah kon. suñu laaj bi jëkk rek mu ngi jóge ci sëriñ Badara njaay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkal bu baax a baax ci eh, ab taxawaayam bu am solo lool ci biir liggéey bi ak ak yittewoom liggéey bi yàlla yàlla na yàlla doole defal dafa bu baax a baax moom dafay laaj ab laaj te mooy man nasiya sujuuda wa tazakarahu ahna asalaati aw baada salaat day laaj ki nga xam ne kii dafay julli waaye bi muy julli moom maanaam fàtte na ab sujjóot waaye sujjóot boobu nag bi mu ko fàttee maanaam laataa julli gi jeex maanaam ci biir julli gi la ko fàttaliku daal bu fekkee ne fàttaliku na ko ci biir julli gi nan lay def waaye it bu fekkee ne dafa fàtte sujjóot boobu ba julli gi jeex moom nan la war a def ñu koy xamal ne ko ab sujjóot ku ko fa fàtte ci julli ba jóg ba dugg ci ràkka ba ba topp ca ràkka boobee la sujjóot ba rawee soo taxawee ci ràkka boobu te ràkka boobu fasoogut maanaam rukkoo goo ndax ab ràkka mi ngi fasoo ci boo rukkoo ba siggi kon ràkka boobu nga fàtte sujjóot bi soo jógee ba dugg ca la ca topp rukkoo goo dangay dellu ca suuf daal di sujjóot sujjóot boobu euh, dal di dellu si waat euh, continue jógaat maanaam continue sa julli su fekkee ne nag danga dem ba ràkka boobu nga fàtte sujjóot bi dem nga ba bi ci topp dem nga ba rukkoo kon di ko doog a fàttaliku boobaa nag dangay wéyal ràkka boobu te xam ne bee nga xam ne bii moom nga bàyyi woon si juddu boobu da nga bàyyi maanaam bokkatut waaye bii ci topp nii nga xam ne dugg nga ci rukkoo bi boobu moo koy remplacer bu ko defee nga continuer mu tëlli julli moom loolu mooy bu fekkee na ko fàttaliku ci biir julli gi te rakka bi ci topp maanaam fasoogut beneen laajaar bi ci toppam mooy su fekkee ne nag dafa fàtte sujjóot bi ba julli ba pare léegi doog a fàttaliku ne moom kat am na sutur boo xam ne bii su jootu ko nga ne léegi boo ko fàttee ba sëlma su fekkee ne da nga sëlmal rek daal di farleku ne man kat eh, am na su joot bu eh, moo su bu ko defee dangay ngay di jóg su joot ko su joot boobu da koy indi waaye bu fekkee ne toog lu yàgg maanaam ba mën naa am fi nga toogan doon julli nga jóge fa wala nga toog diir boo xam ne bii sam jàpp yàqu na fa nee moom bu loolu amee moom maanaam julli googu moom day yàqu faw nga julliwaat geneen julli boo xam ne gii maanaam mooy remplacé julli googu nga julli woon ndax euh, jéem sañ nga toog diir bu yàgg a yàgg dog ko fàlleku daal wala njàpp ma toj dañu jàpp ne julli gee moom euh, nekkatut da nga julli geneen julli kon daal boo ko fàttee fàttee ba seulement boo toogee lu yàgg ne nañu googu julli day yàqu waaye tamit bu njàpp mi tojee itam day yàqu da ngay war a baamuwaat raka boobu nga xam ne bii julli gu nga xam ne bii maanaam ca la sujjóot ba raay woon euh, wallaahu alam beneen laajam bi mu ne euh, ibdaalu sirri bil jëhri awil jëhri bi sirri maanaam kiy julli war na yàllu biral ko wala mu war na biral yàllu ko dañ naan man abdala sirra bil jahri faqad zaada wajaba alayhi sujudu sahwi baada salaam képp koo xam ne kii bi ngay julli danga war na yàllu nga juum biral njàng ma ne na jàpp ne danga dolli ci julli ga su ko defee dangay war a sujud baada salaam mooy bu julli gi àggee maanaam boo jullee ba noppi dangay ngay sëlmal sujjóot ñaari sujjóot daal di taaye daal sëlmalaat waaye wa man abdalal jëhra bi sirri faqat naqasa wa wajaba alayhi sujudu xabla salaam waaye koo xam ne kii da nga war na biral far yal ko ci njuumte da jàpp ne da wàññi kooku moom li ko war mooy bu jullee ba noppi balaa sëlmal mu sujjóot loolu lañuy wax sujudu xabla salaam yi maanaam bala ngaa sëlmal da ngay sujjóot sujjóotu daal di taayawaat euh, doga sëlmal beneen ñetteelu laajam bi mi ngi laaj mën na siyal fatihata fi salaati euh, koo xam ne kii day julli fàtte am rakka mu fàtte jàng fatiha ab rakka ca euh, fàtte jàng fatiha jàppal ne rakka baaxatul da indi beneen rakka boo xam ne bii mooy remplacer rakka boobu nga xam ne bii te nga jàngul faatiha su ko defee nga sujjóotul ko sujjóotu sahwi am nañu ne nag maanaam boo ko jiitalee muy doon xab xabla salaam maanaam bala ngay sërmal baax na waaye ne rek am na ñoo xam ne ñoom ñeneen la gën mooy nga sujjóot ko baada salaam kon daal ki nga xam ne kii fàtte na ak faatiha ci biir ak jullit na jàpp ne rakka booy mu jagor fatiha ja moom baaxul day indi beneen rakka remplacé te sujjuut sujjuut du sëfi su ko defee kon sëñ euh, Badara Ndiaye loolu la mooy xam ne euh, moom la ñu tontu ci sa laaj yooyu xam naa lu ci mbokk yi gën a mën a leeral rek baax na jërëjëf wallaahu alam beneen laaj bi ci topp itam mi ngi jóge ci sëriñ Xaadim Diop. sëriñ Xaadim Jóob Nuurud Daarayni ñoo ngay ziar bu baax a baax a baax moom itam mu indi fi ay laaj yu am solo moom itam laajam bu njëkk day laaj dane hël ak talaaxu asna alxamli mu baaxul ndax euh, jigéen mën nañ koo fase ndax boroom këram mën na koo fase bu fekkee ne dafa tollu ak diggante waaw loolu moom lañ cay tontu mooy lu mën a nekk la lu ñu may nit ki la bu euh, soxnaam tollob diggante ba ñu àgg foo xam ne fii da koo bëgg a fase mën na koo fase ndax loolu day bokk ci li tax ni yàlla di wax ayab alxuraan bi muy wa ulaatul ahmaali ajaluhunna xam yadana xamlahunna yàlla dafay wax na ñi nga xam ne ñii euh, dañoo ëmb dañoo tollub diggante su fekkee ni dañ leen a fase maanaam bu ñu amee doom rek maanaam fa la seen dayam maanaam yow boo ku fase woon soxnaam nga xam ne ab diir bu gàtt mën naa toll ci ay minutes sax nag mën naa tàmbalee ci ay minutes topp ca mu daal di am ko ne te fekk fase nga ko fase boo xam ne bii bu dagg gu dog la su boobaa moom jeex na su dee am na ay fan doog am doom na ndax moom daal fu mu amee ay gone fu mu amee doom ci biir dajooju rek maanaam nga xam ne moom daam jeex na ndax ne alxuraan moo ko wax ni ñi nga xam ne ñi dañoo tollu diggante suñu nekkee ci idda saa ñu amee doom rek maanaam mooy jeex na bu koo xam ne kii borom këram dafa génn àdduna itam mu war a daw maanaam ñeenti weer ak fukki fan saa bu amee doom rek maanaam idda jooja moom da koy daal wàcc su ko defee it ñu ngi laajaat euh, zabaxu bahimatin sadaxatan talaban li shifa marad muy day laaj ne ndax lislaam may na nit ki mu rend benn bàyyima def ko sarax euh, ngir sàkku ca ak wér maanaam koo xam ne ki dafa feebar euh, maanaam rey lenn ci bàyyima yi def ko saraax ngir sàkku ca ak wér maanaam ngir sàkku ca saafara waaw loolu itam lu ñu mayab jullit la waaye ida xasada bihi sadaxatan li wajhillahi talaban lil ilaaji su fekkee ni loolu muy rey maanaam dajaa fas ci xolam ne man lii dama koy saraxe te yàlla tax waaye sarax bi ma koy saraxe itam dama ci sàkku yàlla sama feebar bii mu wéral ma ko su boobaa ne loolu dagan ci moom lay doon ndax sallallahu alayhi wa sallam dane daawaw mardaakum bi sadaxati seyduna muhammad dane ngeen feebaratee maanaam na ngeen faj seen feebar boobee ci sàkk ay sarax kon suñu xaadim dañuy wax naan fala xaraja ala almaridi ida zabaxa shaatan aw gayraha yarju biha min allahi shifaa fa inna sadaqata min asbaabi shifaa'i wa zabahu sadaqatun sadaqatan lillahi talaban li ay xaajatin mubaaxatun min sadaqati dañ ne ki feebar may nañ ko mu bu fekkee ne rendi na ab gàtt wala leneen loo xam ne may nañu jullit may nañu ab jullit mu rendi ko mu rendi loolee di ca yaakaar yàlla defal ko ca ak wér ca feebaram boobu ne loolu may nañ ko ko waaye nag na jublu ab sarax su ko defee na ne ab sarax kat bokk na ci sabab yi nga xam ne dina tax maanaam nit ki mën a am euh, saafara ci feebaram te it ren di maanaam yàlla dañu ko may dagalal ko ci ñun muy ab sarax mu doon ab sarax bokk ci sarax yi nga xam ne yi yu nu may la kon loolu itam lu mën a nekk la nit ki feebar euh, ren def ngir saraxe ko ngir sàkku ca yàlla wéral feebar boobu mu may nañ ko ab jullit waaw suñu xaadim jóob itam di laajaat zabxu dajaaji wa tarxuhu mubaasharatan alal maa il muxlaa mooy rend ginaar bi nga ko rendee rek nga daal di koy bàyyi mu daal di dugg ci ndox moo xam ne nii ndox mu tàng la waaw bu ko defee ren bi nag moom nañ ci topp euh, li nga xam ne lii moom la ñu lislaam digal ñu ñu war na rendee su ko defee euh, day bokk ci li nga xam ne lii euh, waaw war nañ ko ci sóoraale ci booy rendi mooy muy tudd tur yàlla ca la nga ne maanaam nga wax bismillaahi wax allahu akbar bi nga xamee ne bii yaa ngi rendi loolu ngay rendi su ko defee bokk na ca la nga xam ne lii lu ñu war a bàyyi xel la muy sannu si kii ni jayran mooy li nga koy reye maanaam la loolu ñaw loo xam ne ni maanaam dagg ba day gaaw waaye tamit ki nga xam ne kii mooy rendi li muy rendi na nekk koo xam ne kii ku mën a rendi la su ko defee eh, noonu mu ko waxee bu fekkee ni fi muy liggéeyee béréb boobu moo laaj loolu ndax euh, rendi moom jéem rendi nga rek maanaam euh, bàyyi mu dugg ci biiram ndox am na ñoo xam ne dañ ne maanaam la doon gën mooy nga bàyyi ko ba mu dal waaye itam am na ñoo xam ne dañ ne euh, dara nekku ca maanaam boo ko defee itam ndax jéem rendi nga ko moom soo ko mënoon maanaam dolli metit woowu daal mooy gën waaye jéem liggéey lu moo laaj loolu ndax day doon yu baree bari yoo xam ne yii day dajaloo foofu tey àlla kulli xaal moom dinañ ko dugal ci ndox mu tàng ngir dongam yooyu dañ loolu maanaam lu mën a nekk la waaye nañu sàmmante daal ak li nga xam ne lii maanaam mënu caa ñàkk muy nga wax bismillahi allahu akbar te it liñ koy rende doon lu ñaw loo xam ne lii rende gi day gaaw te euh, ñu sàmmante ci ak bu dee ci kër gi la moom rey ko daal di ko dugal ci ndox mu tàng loolu moom mën na ne waaye bu dee foofu ci lu mel ni usine yooyu yooyu dañ naan maanaam bu dee ne yu baree bari la sax boo dikkee ba tiim leen jàpp genn gi wax bismillahi allahu akbar jooju maanaam mën nga caa fasaale yu ci des yépp maanaam rendi leen maanaam bañ a waxaan bismillah jooju kon daal xam naa ab tënk la moom itam ci wàllu ginaar yooyu maanaam loolu muy laaj ci rendi boobu yeneen laaj yi suñu mbokk suñu mag sëriñ biir moo ko rotal ci biir laaj yi suñu mbokk mu baax ndeysaan suñu xarit wax dëgg day suñu mbokk mu baax lool ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax a baax moom nag li muy laaj day jëm ci e, wàllu koor laajam bu jëkk dafay laaj kayfa kaana siyaamu qabla al islaam koor laataa lislaam di ñëw maanaam ban façon koor lañ doon woor waaw ndaxte loolu moom lu yàlla wax la mooy koor gi nuy woor yàlla dane maa ko farataal ci yéen maanaam maa farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataaleen ci ñi nga xam ne ñi ñoo leen fi jiitu mooy yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum yéen ñi nga xam ne ñuy gëm ngeen da ngeen xam ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataal yéen ci ñi xam ne ñii ñoo leen jiitu woon kon haza dalilun ala wujudi sawmi qabla al islaam yi kon ay bi dañ ci mën a tegtaloo ne kat euh, koor kat kon njëkk lislaam bi ñëw maanaam euh, lu aman la wa huwa ibadatun faradaha llahu ala al yataqarrabu bihi al abdu ila rabbih te ne ne koor ak jaamu yàlla goo xam ne gi yàlla da ko farataal ci mbindeef kon nga xam ne bu ko jaam bi def ak jaamu yàlla goo xam ne gi maanaam day tax mu jegeñe boroom moom lay doon wa yabtaidu anil muharramat waaye tamit su ci jaam bi nekk di ko def dina tax maanaam mu sori lépp loo xam ne gi lu araam la loo xam ne lu yàlla tere la dina ko mën a sori lakin siyaam lakin siyaamal muslimina yaxtalifu an siyaami lazi xablahu waaye nag comme ni mu laaj ne ndax koor yooyee euh, jëkkan lislaam ak koor gi nga xam ne bii bi lislaam ñëwee lañu lañu ko yàlla farataal ndax ñoo bokk wala am nañu lu ñu wutee waaw xam naa bu ñu bokkee lu néew néew lañu bokk ci wàllu ngëneel bu dee ci wàllu ngëneel gi la daal am na benn tomb boo xam ne bii moom moom lañu bokkule mooy bu fekkee ni ñooñu dañ doon woor comme wooru koor goo xam ne gii bàyyi lekk ak naan la daal euh, ngëneel googu moom la ñu seetlu ne maanaam euh, bokkule ne ko ak sunu koor gi nga xam ne gii moom la ñuy woor bu weesoo kooku daanaka liñ ci jàng mooy amut leneen loo xam ne li bokkule ne ko maanaam ci ay ngëneel yoo xam ne bokkule ne ko sunu koor gi moom la euh, yàlla farataal ci ñun loolu incha allah dinañ ci jéem a leeral dara. koor yooyu jëkkan dafa wuute lool ak suñu koor yi ndax wax dëgg yàlla lislaam moom mooy diine ji nga xam ne jii mooy diine ji nga xam ne jii maanaam moo gën diine yi ko jiitu woon yépp loolu tax diine yi ko jiitu woon yépp yàlla bëggatut ku ko ca jaamu moo tax it euh, lépp loo xam ne lii mu ngi ci biir lislaam muy ak jaamu yàlla koo xam ne gi ku yàlla farataal ci ñun la donte tegal na ko ñu jëkk ñi itam maanaam li mu ci defal ci ay ngëneel maanaam du bokk ak la nga xam ne moo nekkan ci jaamu yàlla yu jëkk yooyu nga xam ne dafay ñëwoon njëkk lislaam ndax xam nga ne suñu weeru koor yu nu yàlla defal yàlla def na nañu ci ay ngëneel yoo xam ne maanaam bokk na ca def ci guddi goo xam ne gii yàlla moo waxal boppam ne guddi googu moo gën maanaam ku ko màggal la la ci yàlla fay mooy gën euh, junne weer yoo xam ne maanaam nit ki da koy jaamu yàlla euh, guddi googu amu ci muy laylatul kon googu ci koor gi rek la ko yàlla def muy def ci guddi goo xam ne bii ku ko ci yàlla fay mooy gën a bari mooy ëpp boo jaamoon yàlla weer yoo xam ni maanaam laylatul xadri néewul ci junni weer yooyee waaye bokk na ci itam ci ay ngëneelam euh, guddi googu eh, bu ñëwee muy nekk ci biiru koor ci biir koor malaaka yërmande yi dinañ wàcc ci guddi googu di saafante ak jullit yi nga xam ne dañuy wàcc ci guddi googu bari lool takku lool di jéggul jullit yi ak di leen ay ñaanal ay xewal yoo xam ne yii dañ koy ñaan ci seen borom ngir yàlla defal ko jullit yi loolu nag day nekk lu sax ba nga xam ne di fajar jot na waaye tam bokk na ci ngëneeli euh, koor gi nu yàlla defal mu wute ko yaa ko jiitu woon mooy alxuraan ji nga xam ne ji maanaam mooy lettre bi nga xam ne bii moom itam mooy téere bi nga xam ne bii maanaam moo far téere yi fi yi ko fi jëkkan yépp mooy itam ndax lu mat téeméeri téere ak ñeenti téere yàlla wàcce na ko euh, te téeméeri téere sax jotuñu noo tuddal seeni tur wala àgg guñ ca waaye ñeenti téere yi nga xam ne bii moom mujjën sax ñetti téere yi mujj yu muy tawraat ak zabuur ak injil yooyu sax raaf nañu waaye alxuraan ji dong moo fi des nga xam ne moo fi nekk ba keroo àdduna nga xam ne lépp loo xam ne di doomu aadama soxla woon na ko fii ci àdduna ak àllaaxira lépp mi ngi ci biir alxuraanul karim te euh, téere boobu yàlla mi ngi ko wàccee ci biir weeru ko ngir euh, yërëm ñu ak defal ñu ngëneelam ak bëgg boo xam ne ko bëgg xeetu sidna muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ngëneel gi ma lay wax ne nag moom maanaam moom lañ seetlu rek ne maanaam koor yooyu bokk na ne ko koor sunu koor gi mooy bu ña xam ne ni dañ doon woor ngir maanaam ci xiif ak mar lañ ko doon defee ndax xiif ak mar dafa am ngëneel goo xam ne gi maanaam day setal xolub jullit bi day eh, sellal ak ruuxam maanaam defal ko transparence boo xam ne bii nit ki su dee xiifa kamar day eh, leeri jàmm yàlla day yomba dugg ci xolam lool da koy tàmmaloo di ko xiir di ko dimbali ci mu mën a jaamu yàlla bu baax a baax a baax kon ña ca doon woor ñoom ngir di xiifa kamar moom eh, lu ngëneel googu moom mën nañ ko ca amee ndax moom loolu moom ku koy def rek maanaam loolu lay def sab xol naa loolu rek lañ ci loo xam ne xam nañ ne xam nañ ne mën nañ ko mbokkale nañ ko ak koor bi nga xam ne bii moom la ñuy woor su ko defee euh, ñooñu nu jiitu woon nag euh, dañ ci jël ay xeet yoo xam ne yii am na luñ doon wooree maanaam lu mel ni siyaamu bani israila am na luñ ci gëstu siyaamu almisriina alxudama am na luñ ci gëstu waaye siyaamul masiix yi na am na loo xam ne gëstu nañ ko ci muy ñoo ñuy wax banu israila am na koor goo xam ne gi moom lañ doon woor waaye itam ñooñu doon xam ne ñoo dëkkan Égypte yàggan lool ñoom itam am nañu xeetu koor buñ doon woor waaye tamit ñi nga xam ne ñi ñooy chrétiens yi tamit euh, amoon nañu xeetu koor goo xam ne gi moom la woor su ko defee dañuy jël kon lenn rek ci tënk boo xam ne bi dañ ko jël ci saw sawmu bani israila muy banu israila ñoom nan lañ daan wooree mu ne kaana yu'tabaru ka alaamatin tadullu ala alxusni wal takfiri an dunubi nee na ñoom seen koor eh, lañ ca daan xalaat maanaam di ko ca fas mooy dañu doon woor jàpp koor gi ne comme day nekk màndarga moo xam ne nii dañ day feeñ ci ñoom di tegtale ñoom dañoo toll ci njàqare ak it maanaam ñiy woor ngir ñoom seeni bàkkaar ñu mën leen koo jéggal bu ko defee wa yasumuuna al kasiira min al ayaami fi sanati ñu ne nag ñoom euh, dañ doon woor ay bés yu baree baree bari ci at mi xam nga kon foofu wuute na fekk suñu koor gi nga xam ne gi weeru koor gi benn weer dong la ko yàlla def ci at mi moom waa banu israila ne moom dañ daan woor ay bés yu baree baree bari ci biir at mi mislal yawmi thalis ashara min mars ne ne le mars euh, fukkeelu fan ak ñett ci mars dañ ko daan woor wa siyaamu thalathati asaabia min assaabi achar juillet ila taasia min août mais itam dañ daan woor ñetti semaine yoo xam ne yii ñu ngi koy tàmbalee ci eh, juróom ñaare eh, fukk eh, fukk fukki fan ak fukki fan ak juróom fukkeelu ba ca euh, juróom fan ci weeru ut kon ak koor nga xam ne kii moom banu israila ne euh, dañu doon woor fukkeelu fan euh, ak ñett maanaam bu mars amee fukki fan ak ñett ne ne boobu dañ ko doon woor waaye itam nee na daanañu woor euh, ñetti semaine yoo xam ne yi ñu ngi koy tàmbalee ci euh, fukkeelu fan ak juróom-ñaar ca euh, juillet ba ca juróom-ñeent fan ci août kon loolu itam len la ci li xam ne nii maanaam ak tënk la ci banu israila la ñu doon woore bu ko defee dañu jëlaat siyaamul masiix yi na chrétiens yi nag ñoom itamit seen ak koor mu ne kaanu yasumuuna xamsatan wa xamsiina yawman ne ne chrétiens yi moom daanañu woor juróom fukki fan ak juróom boogu woowu was sawmul muxaddas ne ne koor googu as sawmul muxaddas lañ ko tudde woon ñoom wa salaasatan wa arbaana yawman sawmul milaad daanañu woor itam ñeen fukki fan ak ñett ci ay bés yoo xam ne sawmul milaadi lañ ko tuddewoon wa sawmu al azra xamsatan wa ishrina yowman daana yoon itam ñaar fukki fan ak juróom yoo xam ne yi sawmul azra yi lañ ko tuddee woon wa sawmu rusuli bayna xamsata azra wa arbaana yowman daanam koor koo xam ne gi sawmu rusul lañ ko tuddee woon ñoom chrétien yi daan ko def ci lu mat fukki diggante fukki fan ak juróom ak ñeent fukki fan nga xam ne euh, léeg-léega dañ koy woor fukki fan ak juróom waaye itam léeg euh, dañu koy woor ñeent fukki fan wa sawmuhum al imtinaaw an tanaawuli luxumi wa mustaqaatiha ne na nag ñoom chrétien yi koor googee ñu doon koor ca jamono yooyee bokkut suñ koor gi ndax ne na ñoom liñ daan woore mooy maanaam bàyyi lépp loo xam ne aw yàpp la duñ ko jëfandikoo ak lépp loo xam ne lii lu ak yàpp la kon xam nga ne boobu itam wuute nag suñu koor gi nga xam ne moom la woor geneen xeetu koor gi nga xam ne gii doon nañ ko woor itam njëkk lislaam mooy sawmul misri yi nal xudama ñooñu nga xam ne ñi dañoo ñoo jëkka nekk Égypte lay wax maanaam ñu dëkkan Égypte bi gënoon faa yàgg maanaam jëkkan fa ñoom itam ne ne kaanu yaatabiruuna sawma faridatan diiniyatan li taqarubi min al mawta an tariq al imtina an al itaam wa sharaab li an al laa yaakuluuna wala yashrabuuna nee na ñoom nag ñoom égyptiens yu yàgg yooyu yi nee moom ni ñu jàpp woon koor daal mooy farata la joo xam ne ji diine seen diine moo leen moo leen ko farataal ci ñoom waaye ñoom nañ ko jàpp woon mooy dañu doon woor ngir maanaam ña nga xam ne ñi ñoo faatu woon ci ñoom maanaam ñuy jegeñ ak ñoom ci wàll goo xam ne gi moom la ñooñu faatu dundee maanaam ñoom lañ ci jublu woon ne mooy dañoo bëggan di woor ay fan yoo xam ne yii dañ ci xaw a ñi nga xam ñoom ñoom la ñu faatu maanaam seen néew ya bu ko defee loolo mooy dañ doon bàyyi lekk am naan waaye lañ ci jublu woon mooy jéem ñi nga xam ne ñi dañoo faatu ne nañu du ñu lekk du ñu naan ne na ñoom loolu tax ñu doon bàyyi lekk googu ak naan googu ngir maanaam am ay fan yoo xam ne day mel ni dañoo dem làng ak ñi nga xam ne ñu ñooy seen néew yooyu maanaam di dund lenn ci dund dund ko xam ne gii moom la ñuy dund kon defe naa googu koor itam yéen a jën ca doon def wóote naa gi nga xam ne gi euh, moom la ñuy woor su ko defee it bokk na ci xeeti koor yoo xam ne yi euh, yàlla am na ku mu ko muy soxna si ñuy wax mariama alayha salaam mu ne wa min as-sawmi sawmu mariama alayha salaam wowal ne ne bokk na ci koor yooyee koor bi nga ne bii moom la soxna mariama moom daan doon woor maanaam mas na ko woor te mooy maanaam bañ wax loolu comme ni ñu ko alxuraan nettalee mooy kama a Allahu taala fa xuuli inni nadartu li rahmaani sawman falan ukallima al yawma insiyan Mariama am na lu ko yàlla doon digal ba digal loole ba mu bëgg mu wuy da ko ne boo demee ca sa gaaya bu ñuy wax ak yow na nga leen junju wax leen ne leen man kat tey jii dama digg ak sama boroom koor goo xam ne bii koor ak ñàkk ka wax la kon tey jii duma wax ak benn doomu aadama kon euh, koor googu itam dafa bokk ci xeeti koor yi nga xam ne mooy maanaam ñàkk ka wax la moom itam yaakaar naa bu ñu ko noppalee ak suñu koor gii Euh, dañuy daal di wuute lool dañuy seet lool kon xam naa loolu it moom it euh, geneen koor la goo xam ne gii daal kooru euh, bañ a wax lañ koy la doon daal maanaam buñ lay wax yow doo tontu doo wax ak kenn itam. loolu itamit ab tënk la boo xam ne bii daal xeeti koor yooyu nga xam ne moo fi ñëwoon njëkk lislaam daal yooyu moom noonu dafa doon demee. kon xam naa ñu gën koo xoolal bu baax a baax xam ne euh, yàlla moom nii mu farataale ci ñun koor noonu la ko farataale ca xeet yi nga xam ne yi ñoo ñu fi jiitu bokk na ci laaj yi nga xam ne sang bi mu ngi koy laaj muy sëriñ ndiir ba tey mooy adamu ixraaj yi zakatil fitri yi natiijatuhu maanaam ñàkk génne azakay murum koor maanaam lan la mën a indi jullit bi ci ay jafe-jafe maanaam ndax bu ko génnewut euh, dina ci am benn jafe-jafe wala déet euh, waaw maanaam ki nga xam ne kii dafa woor ba noppi day su génnewut euh, asakam murum koor moom rek nga xam ne am na jafe-jafe bu mag te mooy xaddis bi nga xam ne bi moom lay bëgg a wax nii xaala sallallahu alayhi wa sallama sawmu ramadaana muallaqun bayna samaai wal ardi wala yurfaw illa bi sadaqatil fitri muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne weeru koor day dañ ko aj ci diggante asamaan ak suuf te koor googu nga xam ne gi nit ki da ko doon woor ñu ajal ko ko foofu ci diggante asamaan ak suuf feek génn wut asaka murum koor foofu lañ koy bàyyi maanaam diisu ko yëkkati mu àgg fa nga xam ne fii maanaam fa la war a mën a fekk dem jariñoo ji ko kon ki woor ba noppi bañ a génn muuram ko na xam ne loolu moom moo ko cay fekk mooy su wooree te génnewut muurum koor moomu na xam ne kooram googu mu ñu aj ci diggante asamaan ak suuf du ag fa nga xam ne fii fa la war a àgg euh, feek joxewut euh, muurum koor moomu mu laajaat na itam alaa man tajibu zakatul fitri ana kan moo war a génne azakam muurum koor moomu liñ ko cay tontu mooy yuxrijuhal mar'u an nafsihi wa an kulli man talzamuhu nafaqatuhu min zawjatin wa walidayni faqirayni wa awlaadin zukurin ilal buluuxi xaadirina alal kasbi wa inaasin ila duxuli zawaaj ñii ma lay wax nii ñépp dañoo war a génne asaka muurum koor mooy nee na asaka murum koor nit ki nga xam ne kii boroom kër la yoroon njaboot képp koo xam ne kii mu ngi koy dundal maanaam mooy rab dépense rek moom moomu ñooñu ku ci nekk moo war a génneel murum koor bi mu ko génneelee boppam ba pare moom boroom kër bi war na ko génneel boppam ba pare waaye itam képp koo xam ne ki moo koy joxam dépense moo ko ko war a génneel maanaam lu mel ni soxnaam walla ay soxnaam moo leen ko war a génneel ñaari waajur a ngi tam maanaam bu fekkee dañoo nekk ñu ñàkk amuñu ñu mën a génne asaka mburum koor moom moom moom di leen dundal moo leen war a génneel asaka mburum koor waaye itam doomi góor ko amee moo leen war di génneel asaka mburum koor bu keroog ñuy màgg ba mën a dem wuti eh, alal waaye tamit bu amee doomi jigéen tam moo leen ko war a génneel ba keroog ñuy am ay boroom kër yoo xam ne ñoo yor seeni dépense kon ñii ñëpp daal kum ci mën a doon ci tënk rek képp koo xam ne ki yow yaa koy jox ak dund muy lekk su euh, génnee muurum koor jotee yow yaa ko war a génneel kon defe naa loolu mooy li nga xam ne moom itam moo tolloog lim ci doon ci ay laaj waaw fi tamit euh, xam na lu ci mbokk yi gën a mën a leeralaat rek dina am solo lool wallaahu a'lam yeneen laaj ci topp soxna si ndeysaan moo ko laaj moom itam soxna Tibba Njaay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom itam di ko ndokkeel bu baax a baax ci moom itamit yittewoo gum yittewoo diineem waaye tamit yittewoo nga xam ne gi yittewoo na ko liggéey bi nga xam ne bii moom lañu soobu tam doon liggéey xaadimu rasul doon liggéey bu sell mu di ci tàbbal ay laaj yu ama am solo tey soxna su mi ngi laaj ne ne azawjatu lati yamuruha zawjiha an taqula alxaraama wa tafaala alxaraama day laaj ne waaw eh, jigéen bu nekk ak boroom këram te boroom këram kooku day koy digal naa ko del wax lu araam ak di def lu araam eh, kooku nan lay def moom ñu koy wax ne ko kooku moom euh, loolu muy def moom mi koy digle maanaam na xam ne loolu kenn waru ko digle ab jullit warta nekk ak soxnaam di ko wax loo wax joo xam ne ji ju araam la walla mu di ko def loo loo xam ne nii lu araam la su ko defee rek def na loo xam ne ni moom ci boppam def na lu araam waaye soxna say tamit maanaam du am benn àq wala muy am benn sañ-sañ maanaam loolooy nga xam ne lii moom la ko sëriñam boobu di digal muy di ko wax loolu araam ak di ko di ko ca topp ndax sallallahu alayhi wa sallam dane fi ma'siyatil xaaliq amul menn mu ñu war a topp ci loo xam ne lii ak ko laajo nag moom mooy wax lu di ko wax loolu araam di ko def loolu araam moom lu araam moom lu araam rek lañ ca mën a xam mooy daal waree su ko digle waaye kuñ ko digalit maanaam waroo koo def euh, du ko ko defee euh, ñaareelu laajam ba dafay wax jigéen goo xam ne gii du topp ndigalal jëkkëram zawjatun laa yow amra zawjiha gis soxna boo xam ne bii du topp ndigalal jëkkëram waaw laa yajuusu itaatuhu fi xaraamin laa yajuusu itaatuhu fi xaraamin soxna si bu nekk ak jëkkëram comme lee mu laajam ni mooy laajam ñaareelam bii rek maanaam bu fekkee ni ñàkk a topp ndigal jëkkëram boobu maanaam da ko teg ci ne moom da koy digal lu araam wala mu di ko wax loo koy loolu waru ko caa topp waru ko caa topp waaye su fekkee ni jëkkëram jooju ku ragal yàlla la di ko digal loo xam ne lii ak jaamu yàlla la waaye tam di ko digal loo xam ne lii maanaam wala mu koy tere loo xam ne lii di ko moytuloo loo xam ne lii yàlla da ko tere da ko war a topp da ko war a topp fa rasulu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ida salat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafasat farjaha wa ataat zawjaha daxalat yonente sallallahu alayhi wasallam soxna si bu jullee jullee juróomam mooy julli ñu farataal ci moom woor weeru koor wi nga xam ne nii mooy farata ci moom sàmm boppam ci sàmm boppam wattu ko ba du def lu mu def waaye tam topp jëkkëram ne ne su faatoo tàbbi àjjana topp jëkkëram ji nag saa su ne dañ koy war di leeral mooy mooy jëkkër jële ñu la wax mooy kii ragal yàlla di ko digal ak jaamu yàlla di ko moytu loolu yàllay tere bu jëkkër ja leen noonu su ko toppee te def yee ko war euh, bu faatoo tàbbi ajjana mooy laajaatim kayfa tatarabba zawjatu ma zawjiha nan la jigéen di tarbiyewoo ab sëriñam waaw soxna si xam na mooy rek itaatuhu fi kulli xuquqihi alayha mooy su sëriñ boobu ni nga koy tërbiyewoo bu fekkee ni mel na na mu war a mel ci jullit ab jullit la bu ragal yàlla danga ko amee ay xàq yoo xam ne lépp loo ca war a taxaw rek danga ko war a taxaw maanaam noonu nga koy tërbiyewoo mislu xifdu firaashi mel ni maanaam nga sàmmal ko ab lalam comme niñ ko mën a waxee wa ijaabatuhu fii ay waxtin adaadal jimaa ma waaye tamit euh, nga soxna si dafa war a góorgóorlu ba fu ko euh, sëriñam boobu soxlaa ci wàllu sëy maanaam mu bañ ko ko la ndax loolu lu garaaw la lu day war loo xam ne lii euh, euh, ñu soxna yu bare bare ñu ngi koy def te dañ ci xaw a sagan waaye du yoon sa sa sëriñ yitte wala soxla la nga di ko gànt te fekk ne ka loo man la loolu moom saa bu ko soxlaa ci yow ak waxtu bu mu mën a doon bu fekkee ni fi ñu la koy tere rek mooy fil xaydi wan faas mooy euh, nga nekk ci jamonoy gis reegal wala dereti wasin burut yaar yi moom euh, jigéen euh, sañta tere boppam jëkkëram saa ba ko yittewoo ci wàll googu dafay dem ba ci sax ne dañ ne la su fekkee ne yow soxna si danga bëgg di wor koor goo xam ne du koor weeru koor maanaam koor ak naafila la da nga war a diisoo sa sëriñ boobu tàgg ko wax ca moom ba mu d'accord waaye boo doon woor koor ko nga xam ne kooru naafila la sax di bëccëg gi sa sëriñ boobu soxla la sa koor googee danga ko war dagg dem wuyu ji ko euh, loole nga xam ne lii moom la bëgg ci yow loolu tax dañu la bu dul koor ak farata gi geneen koor koy war mu koor ak naafila na nga ca diisoo ak moom ba may la autorisation euh, mën nga ko woor bu ko defee Euh, bëccëg boobu maanaam na cee mën na la cee bañ a soxla ndax bu la ca soxlaa moom la la war mooy nga dem euh, defal ko loolee ku la ca li jigéen war a tarbiyewu ab sëriñam mooy adamul xuruji min al manzil illa bi isnin minhu mooy yow soxna si na nga góorgóorlu ba fépp fooy dem na ci am ndigalal si bi maanaam ko tàggu ba mu baal bàyyi la jox la ndigalal mën ngaa dem ndax sallallahu alayhi wa dafay wax ne ay mamraatin xarajat bi duni iznin zawjiha kaanat fii laanatillahi xataa tarjaa yonente sallallahu alayhi wa sallam dane saa bu soxna si kër gi te génn ci ndigalal sëriñam boobu na xam ne mi ngi nekk ci rëbbam yàlla ba keroog muy dellu si waat sallallahu alayhi wa sallam daal di waxat ne law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amatul mar'ata an tasjuda li zawjiha yonent sallallahu alayhi wasallam ne su fekkan ni am na kenn koo xam ne kii yelloo na ñu sujjóotal ko su may digal nit naa ko sujjóotalalal di mooy jigéen laay wax ne ko yow sujjóot del sujjóotalal sa sëriñ bi kon euh, euh, sëñ bi am na ci yow ay àq yoo xam ne yi ngir nga am sa jaamu yàlla tàlli waaye tamit euh, ngay am say bëgg-bëgg yoo xam ne lu baax la euh, da cay baax euh, nga tërbiwu si sëñ boobu ci yépp àq yoo xam ne yi maanaam am na ko ci yow rek maanaam nga taxaw ci ko defale na nga xam ne nii moom la ko coobare woon la ko bëggee kon loolu itam ab tënk la boo xam ne bii mën nañ ci yaatal bu gën a bare bare waaye li ma la wax fii rek boo ci jàppee am ci déggee ni tam defe naa dañ ci mën a jariñu bu baax a baax wallaahu aalam beneen laaj bi ci topp sëriñ ndaa sëriñ Abdou Ndaam yaakaar naa moom la de turoo dañoo xaw bu baax a baax waaye defe moom li muy laaj mooy idba ijbaaru saariq ala shiraai ma saraxa bi thamanin xaalin xokkumu moom dafay laaj ne ki nga xam ne kii dañ koo sàcc mu daal di dab sàcc ba daal di jël lam yorom te sàcc ba ba pare nekk na ko yow lii nga sàcc ci man dama la koy jaay jaay ko ci piri boo xam ne bii maanaam dafa dafa ëpp lool lu bare bare bare la nga xam ne lii moom la ko doon jaaye muy laaj am njaay moomu xaalis ba mu ca amee lu ci lislaam wax waaw ñu koy xamal ne ko masalam bi maanaam lii mu laaj ni ci wàllu amin woo mu am alal jooju noonu ci forse sàcc bi ci jaay ko ko njëggu cher googu wax dëgg yàlla amagun ci benn tegtal boo xam ne bii maanaam mën nañu koo tegtaloo muy alxuraan ci ñu xam ne xaalis boobu daggande na wala araam na waaye tamit wax dëgg amaguñ ci benn tegtal boo xam ne bi ci sunna la ñu mën caa tegtaloo ne lu dagan la wala lu araam la waaye leen ci xam daal mooy euh, benn mooy kooku ñu sàcc bu dee ni ci wàllu alxuraan la bu fekkee ne dañuy attewu ci diine lislaam maanaam defut di lislaam atte ndax lislaam moom li mu ñuy wax ci sàcc mooy alxuraan li mu ñuy wax ci sàcc mooy wasaarixu xatu wasaarixatu faqataw aydihumaa lañ ci xamal mooy yàlla dafay wax ne sàcc bu góor bi wala sàcc bu jigéen bi kum ji sàcc bu góor wala sàcc bu jigéen ku ci sàcc na ngeen dagg ab loxoom te loolu doonu loo xam ne ni moom la àttee ci lislaam kon loolu moom du ko sañ xanaa ci sunu réew mi ñaareel ba mooy fii ci sunu senegal defe naa ne ku jàpp ab sàcc la la war mooy maanaam nga yóbbu ko ca yoon kon jéem defu ci ñaar yooyu yëpp maanaam dafa jël atte boppam teg muy forcé ko ci ne ko dama la koy jaay ci njëggu seer danga wax dëgg yàlla euh, xam naa dañuy gën a def ay gëstu rek ci xool boobu masalaa waaye amagun daal fenn fu ñu ci mën a tegtale ne maanaam alal yooyu dagan na wala araam na euh, ñoo ngi bu baax a baax wallaahu aalam sëriñ bay jaañ moom itam ñoo ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel moom itam ci taxawaayam ak pasteefam ak bëggam lu baax ci biir liggéey bu sell bii ñu yàlla boole di ci bàyyi yitteem bu baax a baax moom itam dafay rotal ay laaj muy laaj ne man adraka al imaama fi rakaati thaniyati baada ruku'i fi jumaati mooy ki nga xam ne ki daa ñëw ci jullit ak juma fekk imaam julli benn rakka bu njëkk ba ba dugg ca ñaareelu rakka ba ba rukkoo ba siggi kooku na xam ne euh, faatahat faatathul jumaatu wa yaqumu baada salaamil imaami wa yutimmu zuhra bi niyatin loolu kum dal na xam ne jullit ajuba ga moom raw na ko dañ koy digal ne ko su ko loolu dalee na ànd ak imaam di la des sa jullit ajjuma nga bu imaam agale julleem ba sëlmal mu daal di jóg daal di fas jullit tisbaar agale julleem maanaam jullit ajjuma googu mu duggan léegi da koy far soppi yéene léegi ak tisbaar la mu julli tisbaar ba man maanaam ñeenti rakkaa daal di sëlmal kooku loolu lañu ko digga mu def ko waaye moom ajjuma moom moytu ko am bi ci toppaat mu ne takraaru assalaamu aleykum takraar assalaamu aleykum mooy li ñuy faral di seetlu ci bu ñu jullee ba pare maanaam ñuy baamuwaat assalaamu aleykum jooju lam euh, laaj muy moom loolu ñuy baamu dafa wax ne dafa am ay imaam yoo xam ne dañ koy wax ñaari yoon dañ koy wax ñaari yoon defe naa war wax moom amut ci asalaamaaleykum ñaari yoon maanaam wax ñaari yoon amut asalaamaaleykum comme ni ko suñu waxee min hamzati al li miimikum mooy farata ja soo ko waxee benn yoon julli ga mat na sëkk takkaraar ba doona du ca dara kon euh, nga xam ne kii maanaam euh, day takkaraar asalaamaaleykum jooju comme ni ñu koy defee muy euh, boo nekkee ci sàppe si ki nekk ci sa wetu ndeyjoor mel ni da xaw walbati ko tuuti ne asalaamaaleykum daal di walbati nga sa wetu càmmoñ daal di ne asalaamaaleykum dañ koo sàpp ci julli dañuy bëgg boo silmalee ba nga jooyal ko noonu ci ki nga xam ne kii moo nekk ci sa ndeyjoor jooyal ko itam ci ki nga xam ne kii moo nekk ci sa càmmoñ bu ko defee baamu googu nga xam ne gi ah, xañ na am na ay imam yoo xam ne dañ koy baamu sax ak ay yoo xam ne dañu koy baamu waaye loolu lu ñu sopp dong la waaye eh, koo xam ne kii baamu ko daal lu ñu sopp la boo ko baamu it maanaam yàqu ci julli ga dara ndax julli moom saa boo ne asalaamaaleykum rek jeex na fala yam mooy farata ja ba ca des ak muy laaj sami allahu liman xamidahu ak rabbana wa lakal hamdu ndax ak ñaan daam seen diggante foofu yi tamit euh, gisaguñu fenn foo xam ne dañu fee war a ñaan ci diggante bu muy nga wax sami allahu liman xamidahu ba pare ñaan doog a wax rabbana wa lakal hamdu foofu yi tamit gisagun genn ñaan ko xam ne bii rot na fi kon laajam yooyu tamit euh, moom itam lu ci mbokk yi gën a mën a leeralaat rek moom itam ci noonu la waaw sala wallahu alam beneen laaj bi ci topp wala yeneen laaj bi ci topp muy mu ngi jóge ci moom itam Pape Babacar Ñing moom itam ñu ngi koy ziyaare di ko ndokkeel bu baax moom itam ci liggéey bi moom day laaj qiraatu nafsi suurati lati quriat fi rakaati ula fi rakaati thaniya muy dafay laaj ne waaw jullikat bi nga xam ne bii euh, saar yi nga xam ne bii moom ngay teg ci faatiha maanaam saar yu mu jàngan ci rakkaa bu njëkk bi bu duggatee ca rakkam ñaareel ba moom lay jàng waaw loolu dara néew ci lu baax la lu mën a nekk la yàqu ca julli ga dara saar yi nga xam ne bii moom ngay teg ci faatiha nga jàng ko ci saraka bu njëkk saraka bu ñaareel ba itam nga jàngat ko ca loola yàqu dara lu ñu may nit ki la bu dee julli mën na koo def beneen bi tamit mu ne adamu tartibi suwar muy laaj itam ki nga xam ne kii maanaam mënta teg teg tegale saari ni ñu tegaloo xam nga saar dañuy tàmbale ci suratul fatiha daal di teg suratul baqara di ko tegale noonu di ko tegale ba yëg si ci suratul naas mu ne léegi nag ki ngay xam ne ki ndax dina aaju euh, maanaam nga xam ne da jàng aw saar soo demaatee ci beneen rakk ba saar wa nga jàngaat maanaam sës ci saar yi nga xam ne nii moom nga jàng ne ndax loolu moom ñàkk sësale gi lu muy def ci julli du ca yàq dara moom itam su la neexee boo jàngee faatiha boo jàngee ci saari suuf yi xam naa àll ba ja soriwul boo jàngee faatiha euh, daal di jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun beneen rakka bi ci topp bu la neex nga nga jàng xul awuzu bi rabbi naas maanaam tegal saar yi daal du ca dara euh, loolu yàqute julli ba dara waaye daal dañuy moytuloo yow miy jàng maanaam ngay tàmbalee ci saar wi ci wi jiitu ci suuf sa rakka bu ñaare nga dëkk caa doog caa teg wa ca kaw masalan